maa ngi xam la ni daal. waaye maa ngi xam la ni daal. Thiénaba gii. Thiénaba gii. mooy sekkarab réew mi. mooy sekkarab réew mi. penc mii. penc mii. mooy sekkarab tariixa tijaan yi. mooy sekkarab tariixa tijaan yi. ëtt bii. ëtt bii. mooy sekkarab Thiénaba. mooy sekkarab ba man daal man daal man daal Pape Mor. nee na Baye Mor Gueye. defet. man dama defet defet. defet. doo ko am. defet. Baye As doo ko allah. ak jam jamub sariya. ak jom jamub jam jamub sariya. ñaar yooyu de jar ragal. jëf sekk. mbirum tool yi. mbirum tool changement am na ci. changement am na ci. dama cee waroo woon. dama cee waroo woon. ak maire bi. ak maire bi. léegi déggoo nañu. léegi nag déggoo nañu alhamdulilah. daf ko bëggoon a yor. daf koo bëggoon a yor. ci baatub nguur. ci baatub nguur. ak dogal ak dogal. te ma bëgg mu yor ko. te ma bëggoon mu yor ko rek. ci ormay seexu canaba. ci ormay seexu canaba. ak ndigal ak ndigal. foofu la ñu woroo foofu rek la ñu waroo woon. moo waral. kàngam bi yàgg. kàngam bi yàgg. ma fab suuf si. ma fab suuf si. bàyyi ko ci loxoy commission bi. bàyyi ko ci loxo commission bi. te fekki tam yàqu-yàqu bi ci cana ba. te nag yàqu-yàqu bi ci cana ba. rëy rëy. ba lëj ba ba kenn mënu koo lijjanti. ba kenn mënu koo lijjanti. commission boobu. commission boobu nag. jox naa leen cent baat jox naa leen cent baat waaye amuñu gànnaay waaye amuñu gànnaay gu ñu mën a waññee kenn gu ñu mën a waññee kenn loolu moonu tee mën a dox loolu moonu tee mën a dox te lii te lii mënee su ko réglé mënee su ko réglé te doo sukkandiku te doo sukkandiku nag ci baatum nguur ci baatum nguur moo tax ma ni Talla moo tax ma ni monsieur le maire damaa bëgg damaa bëgg nga jàppale ma nga jàppale ma ci ci ci ci ci sa ci euh, ci baatum ci sañ-sañu ci sañ-sañu nguur te jàppale ma te jàppale ma ci worma bi ci worma ji nga ŋàbb ko nga ŋàbb ko nag waaye bul bul jaasi ji jaasi ji bul dog bul dog <laughs> loolu loolu moo taxoon suñ diggante moo taxoon suñ diggante mu bëggee ko nee mu bëggee ko nee ma bëggee ko nee ma bëggee ko nii rek dem nañu ba yàgg dem nañu ba yàgg nag mu dellu si mu dellu si toog ci chaise bi toog ci chaise bi ni ma sëñ bi ni ma sëñ bi ma ne ko sec ma ne ko sec mun ma loo xalaat mun ma loo xalaat fekk naa la ci fekk si naa la ci góor jaay ma ko li ma bëgg mooy ma ko li ma bëgg daal mooy. kenn ku ne. kenn ku ne. toolam toolam. soo ca àggee soo ca àggee. taxawal ak moom ca digg ba. taxawal ak moom ca digg ba. àq ja àq ja. namat namat. àq ji àq kooka àq àqi tool bi àqi borom tool ba. namat sëkk namat sëkk. bu ca dara des bu ca dara des. koo xam ne kii nag koo xam ne nag da ngaa jaar ca suuf dangaa jaar ca suuf jaay jaay seetal foo dox ak moom seetal foo dox ak moom suuf si jaay luwul suuf si jaay luwul commencé nañu liggéey tey commencé nañu liggéey tey waaye yéen chef de village yi waaye yéen chef de village yi dalal leen seen xel dalal leen seen xel cër yi cër yi kenn du ko faat kenn du ko faat te ma ne ne te ma ne fi bàyyi naa ko bàyyi naa ko mu commencé liggéey mu commencé liggéey waaye rafetal leen seen i njort rafetal leen seen i njort nag ndax damaa fab samay njabootu bopp sama samay doom samay doom tofal ko tofal ko te mun leen kenn mun leen a nax te kenn mun leen a nax taala itam taala yi nag dogu na dogu na nag ne damaa bëgg a liggéeyal seexu canaba ne bëgg a liggéeyal seexu canaba ma fekki ko ma fekki ko kon nañ ko bàyyi kon nañ ko bàyyi nag mu liggéey mu liggéey te ngeen rafetal te ngeen rafetal seen i njort seen i njort dara du yàqu dara du yàqu incha allah jërëjëf Seck allah mat na sëkk